di leen dalal ci fii ci kër sëriñ Abdul Qadir Mbakke radiyallahu anhu ci bis yi nga xam ne ñi ngi ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal mu bokk nag ci yëngu yiñ ci def jataayu xam-xam bi nga xam ne eh, sëriñ bi sëriñ Sidi Mbakke moom sëriñ Abdul Qadir mi sëriñ Cheikh teg liggéey bi ci loxoom moo jagleel sët yi jataay bii ñu di ko taxawal di ci woote waxtaanu diine ngir fàttali nit ñi lenn ci li sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke doon dund ngir ñu man ca yokku naka jëkk nag jataay bi Cheikh Mouhamadul Fadil mi al imam moo ko daan ubbi ci turu njaboot gépp mu ngi ni toog incha allahu taala sëriñ Sidi mi ngi toog mbokk yaa ngi fi ñu fas yéene tàmbuli jébbal sëriñ Fàllu ubbil ñu jotaay bi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa alihi ajmain di sant sunu doom yi nga xam ne ñoo taxawal jataay bi te woo leen fi ñi gërëm ñëpp di leen sant ci turu sëñ Seex bëgg nag ñu déglu bu baax ki nga xam ne mooy def waxtaan wi te jëm ci discours murit ñu tëdd ko discours murit ki koy def ci su mbokkum deret di mbokkum taalibe di alaaji Fàllu Buso mu sëriñ Xasan ñi ngi koy ñaanal tawféex di ñaanal mboolem ko teew ci jotaay bi rek tawféex ñi ñaan lépp loo xam ne andi nañ ko fi ci aajo yàlla mii faj aajo yi fajal ñu ko te yàgg fee teew te at muñ dikki rek dàqal ñu ma weesu ñu am ci ngërëmul sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. njabootu sëriñ Abdul Xaadir gépp sëriñ Cheikh nekk ci bopp bi dalal mbokk yi fi teew ñaanal sët yi nga xam ne ñoom ñoo amal jataay bi ñaanit ñu bàyyi xel Cheikh Mouhamadul Fadal Bousso Al mii war a def waxtaan wi. di kenn ci njaboot gi ràññ ko lool ci waar wi mu yëngu it yëngu ci xam-xam jàngale ak yare nekk euh, imaam fee ca daara ju mag jee nga xam ne moom lañuy tuddee excellence bokk ci muassasatu al azhar al islamiyya di fi liggéey liggéey bu am solo di directeuru école ba di ilimaane jumaa ja rafet lool ay taxawaay bokk na ci li koy fësal ren jii rek examen bac yi école am ñu néewu ñi am cent pour cent ci ay résultat ci la bokk te loolu njàmbaar ak taxawaay bu rafet ak jiite gum tege ci yoon bokk na ci lépp ku may ñu xam ko lool ci barab bi rawatina fii ci ko Sëriñ Abdou Khadir ndax ku xam Sëriñ lu Khadir xam li doxoon diggam ak Sëriñ Xasan Bousso way juram loola moo tax kilifa yi tànn ko ngir mu ànd ak ñun mbokk yi ren ngir tomb bu am solo boo xam ne ci lañ bëgg a waxtaan muy li ñuy tuddee alxitaabul muridi eh, masuliyatun wa taxaddiyaat xam nañ ne jamono yu ñu toll yoonu murid ay kàddu yu baree bari mi ngi ciy jib ñuy wax lu ne mu mel ne laaj na kon jàngat wax jooju eh, sëriñ Fallou ci ay tomb la ko tënk bokk na ca lu muy laltaaye jataay bi ñaareel ba it danañu leeral lan mooy alxitaab almuridi ak ban solo la am ak it ki koy def ban responsabilité moo gàll ci aw loosam danañu wax it défi wala gàllankoor yi nekk ci kanam discours boobu lan moo koy gàllankoor bu noppee danañu proposer incha allah ay yum jàpp ne buñ ko defaree xëy na bu fekkee am na lu ci jagut dana mën a jag incha allah bu noppee tëjal jataay bi ñu ñaan mbokk yëpp ñu teewlu ko ku ñu xam la ci wax lu leer lu amal njëriñ nit ñi xëy na nag saraaxa bi am bi am it ñu jégal ko ko xam ne li muy wax noonu la ko na ni mu ko yëgee noonu la koy waxee te loolu du am solo la wax ju leer te mel na ne sëriñ bi juñu na ko nee na ku ñu xam la ci saraxatuhu as-sadiqa kon sëriñ fàllu ñu ngi lay jégal jébbal kàddu gi di ñaan sunu dafa la tawfiq ak siir euh, ba li nga bëgg a jot li nga mën ko jot li ba mbokk yëpp mën cee jariñu bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñu ngi yëkkat sunu kàddu muy kàddu yu nuyoo ak cant ci nuyoo lislaam boobu di ñaan sunu borom lim ci dëxëñ te mooy jàmm ak yërmande ak barke yàlla ful ko te tasaare ko ci àddina bi yëpp rawatina réew yi jullit yi waaye rawatina sunu réew di Sénégal nuyoo bi ak cant bi ak ziyaar gi ak yi ñu teg ko ci loxol sëriñ Sidi mi nga xam ne ni mooy coordonné màggal gi moo nekk ci bopp màggal gi mu jottali ñu ko mbooleem jabawut Cheikh Abdoul Qadir gi nga xam moom la ñu fàttaliku te ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu jàll law ba ci alxalifatul am lil muridin Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom kàttanal leen yàggal leen fii te mot li seen yéen di sàkku ci ñoom it ñu ñaanal ñu ñun tam suñu borom kàttanal ñu mottil ñu suñu yéene ci barke bis bi nga xam ne nii ci lañ nekk di sant bu baax Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne nii moo ubbi jataay bi ci kàddu yu am solo yi ak ñaan yi nga xam ñaan na ko fi ñaan suñu borom defal nu ci tawféex dëppale ñu ak ñaan yooyu yëpp di nuyu baax nag dayre bi nga xam ne nii ñoo taxawal jataay bi te mooy daayira yi sëti Cheikh Abdoul Qadir yëpp di nuyu itam ñi nga xam ñoom lañ bokkal jataay bi muy sëriñ Mbàkke Abdourahman al imam ci laytaay bi waaye suñu mbokk ma Cheikh Mamadou Fadil Bousso Thierno moom it ñu sëq ak moom jataay bi ak yeneen gëstukat yi nga xam ne nii ñu ngi ci jataay bi te defe naa ne lu ñu fi def bu amee lu manqué ñoom danañ ko mën a mottali di nuyu bokk yépp di leen ndokkeel tam ci at mu bees mi ñu dugg di atum jullit yi waaye itam xew-xew bu bees bi ñuy bi ci am solo bi njëkk ci at mi te mooy fàttali gu ñuy fàttaliku al imaam Cheikh Abdoul Qadir ñoo ngi ndokkee ñëpp ci xew-xew boobu waaye di ñaan ci barkeb Cheikh Abdoul Qadir at mi ñu dugg di atum jullit yi bees yi sunu borom def ko mooy at moo xam ne nii buñ ci génnee mbooleem xat-xat yi njàqare yi nga xam ne nii jullit yi doon nañ ko dund sunu borom danañu ko teggil ndax defe naa ne bu ñu xoolee ci jamono ji ñu toll nii. lislaam ak jullit yi dundu lislaam ñi ngi teg ay xat-xat yu mettee métti fu ñu dem ñu leen di bundu xataal di leen maltraité di leen teg ay coono yoo xam ne nii seen jullit rek tax ñu teg leen ko waaye nag dafa mel ne yëf yi dafa jéggi dayoo léegi dañoo àgg ci fekk ñu ci suñ buntu kër bopp suñ biir kër yi bopp di ñu fa xatal di dox suñu diggante ak ñu mën a joxe suñu jaamu yàlla yi nga xam ne nii moom la yàlla farataal ci ñun te ay jàmbur jógee ci feneen bàyyi seen dëkk ñëw fekk ñu suñu dëkk di ay jullit war a joxe suñuy farata ñu fas yéene dox suñu diggante ak yu mel noonu loolu nag defe naa ne jataayu jullit bu ñu toog war nañ koo fàttaliku waxtaane ko ba jullit bu nekk man caa xam lay cay responsabilité am tam nangu ko assumer ba mat sëkk nangu ko gàddu ba mat sëkk teñ sori xeetu yëngal sidit yi ñuy def nervosité bi nga xam moo ci am yëngal say sidit wala yëngal yëg-yëgi nit ñi wala réaction yoo xam ne ni doo ko jàngat ba teg ko fi nga war a teg yooyu yëpp du faj mbir mi waaye jullit bi nekk na xool li tax lii am ba jullit yi àgg si fii ñu àgg moom ban responsable da ci am te nangu koo gàddu ba ma sëkk loolu mooy fajtal mbir mi waaye leneen mënu koo fajtal diskuur nag bu ñu ko waxee te mooy lépp wax joo xam day génne ci nit jëm ci ñeneen loolu discours lay tudd mu am ñaari wàll benn bi mooy li na ci biir wax ji mooy message bi nga xam ne nii kiy joxe discours bi moom la bëgg a joxe ak wax ji nga làkk wala waxin wi nga xam ne nii ci lay jaar pour jàllale bataaxeel boobu bu ñu xoolee ñaari wér yooyu nag danañ gis ne am na ab cër bu mag a mag ci li xew ci biir jamono ji ci biir jullit yi discours bi jullit yi amee ak nañ koy jàllalee am na ci am na ci lu wér a wér ay jafe-jafe boo xoolee tey ci biir contenu bi maanaam li ne ci biir discours bi message bi ñu bëgg a jàll leen da gis ne wuute gi daf cee bari lool xëccoo bi bari ci loolu ku nekk di weddi sa moroom ku nekk jàpp ne sama la nga nekk rek mooy dëgg sa morom lam ne di dëgg di ay gisin yu baree bari yoo xam ne nii mi ngi ci biir te li ci ëpp ñu baree bari buñ gisee gisin yooyu ba noppi dañ naan lii mooy lislaam wala lii mooy alxuraanul karim te fekk na seen gisinu bopp lay doon ñu nekk la ci benn xista boo xam dañ koo dund mas nañ barab bu ñu nekkoon di fa liggéey ay tubaab ñëwoon fa gane si école ba ñu doon liggéeyee bi ñu toogee ñoom di waxtaan ci biir waxtaan wi ñu doon waxtaanee mbirum xarafal jigéen léegi xam ngeen bu dee dëkk yi ca féete gànnaar ñoom dafa bokk seen aada seeni soxna dañ leen di dugal néeg defal leen li ñuy defal góor ñi biñ ciy waxtaan nag am ñoo xam kuréel boo xam dañoo jóg ne loolu daal lislaam moo ko santaane kon dañ ko war a def am beneen kuréel bu jóg wane ne loolu l'islam jàngalewu ko te it na koo mën a bàyyi bi mu jëlee kàddu li mu mooy ne yéen de yéen ne ngeen ay jullit ngeen te ñëpp ci alxuraan ngeen refeeru ba nopp li ngeen di wax bokkul kon xanaa kon li ngeen di wax nangam ak nangam daal ciy commencé sikki sàkk loolu mooy indi discours bi fekkante ne xalaat yi nekk ci biir fexewuñ ba mu dëppoo wala boog wuute na ba noppi ku nekk sax ca la nga nekk wane ne mooy dëgg day mel ne kon fa ñuy refeeru moo am problème loolu dafa fës ci biir discours bi jamono ji ñu toll nii waaye itam fes ci waxin woo xam ne nii léeg-léegi day jéggi dayoo gis mbokkum julit ak mbokkum julitam ñuy wax daanaka ba àgg jokkalante ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yu ñaaw lay doon loolu nag li muy indi mooy dañuy dem ba cër bi ñu ñeneen ñi joxoon respect bi ñu ñeneen ñi joxoon dañuy dem ba ñàkk ko te loolu ci lañ toll bu ñu nekkee suñu biir mel noonu itam day ubbil bunt ñeneen ñi ngir ñu mën caa jaar potoxlu ba wax li ñu bëgg a wax comme li ma joxoon ci misaal bi ma joxoon ci tubaab bi noonu moom bëggoon nañoo sikki sàkkaloo ci lislaam ak alxuraan buntu boobu ci la jaar pour wane ne yéen yéen a ngi wax lii te ñëpp yéen a bokk fi ngeen rafeeru te da ngeen a wuute ci mbir mi kon loolu dafay andi bunt boobu lay ubbi ñeneen ñi jaar ci ba mën a def la ñuy def te leen léegi nag buñ ci jaaree suñu mbokk jullit na ñun moo leen di jàppale bañ def lañ bëgg a def loolu kon ñu gis ne discours bi nga xam ne ni moom la jullit yor jamono yi li ne ci biir war nañ koo xoolaat waaye itam niñ koy joxalee ak niñ koy joxalante war nañ koo xoolaat bu baax te bu yàgg dañoo jàngoon ne wax bu doon xaalis noppi moom wurus lay doon léeg-léeg day situation day toll foo xam ne nii noppi la gën a laaj ci wax waaye itam ñu jàngaatoon ci biir ne li ngay wax di ko rëccu moo ëpp foofu la nga xam ne waxoo ko te di ko rëccu maanaam li ngay wax ba noppi rëccu la nga doon wax wala am loo rëccu la nga doon wax moo gën a bari fuuf la nga xam danga nga noppi di ci am looy rëccu loolu tam ko day tekkal wax ji am na solo waaye am na danger bu ne ci biir ñu jàngaloon na tam ne wax moog médicament ñoo yem garab garab yi ñuy naan na doom ay doom wala yu mel noonu moog wax ñoo yem dañu wax ne médicament boo ci jëlee lu yem doos bi ñu la jox nga respecté ko mën na la amal njariñ lool waaye bu la xër yóbbee ci nga jëfandikoo ci lépp loraange la lay jural naka noonu tam wax mënta ñàkk discours mënta ñàkk waaye nag nay yem fi mu war a waaye bu ko ëppee loraange ji muy jur moo ëpp loolu nag moo am ci discours bi nga xam ne nii moom la ñuy gis léegi ñu koy jokkalante suñu biir ñun ñëpp na xam ne jamono ji ñu toll nii day jamono joo xam ne nii dafa ràññikoo ci wax ju bari liñ gën a seetlu mooy wax ju bari léegi nag dañoo àgg ci ba gëmloo ñu sax ne képp ku waxul ñu fàtte ku waxul doo jot sa cër loolu la nit ñi gëm léegi ba ku nekk boo xëyee la ngay liggéey lépp mooy fexe ba daas sa làmmiñ defar ko ba man na loo bëgg wax mën ko wax boo ko defee nag dugg la sa yoon ne nga dugg ca lu sa yoon newul nga dugg ca lu ne nga wax ca lu ne nga jëf waxin ca ak waxin woo xam ne nii du tege ci nam war a tege waaye itam dem nañ bàgg ci léegi xamatuñ kan moo war a wax ak ci lan la war a wax mu gën a yokk nag bu ñu demee ba jamono ji nga xam ne communication dafa tasaaroo tasaaroo goo xam ne nii loo bëgg a wax am ku la ko mën a jàllaleel te jàllale gi gën a yomb lool mën ngaa toog fii di wax nit nekk fu nekk nit nekk ci àdduna bi di déglu li ngay wax di ci ànd ak yow man caa sax jokkalante ak ay kàddu ci biir loolu kon yomb gum yomba tasaare tax na léegi discours yi gën a siiw gën a tasaaroo moo tax ni ko imaam waxee léegi dañuy gis ne kon xoolaat discours yi nga xam ne nii day jàll léeg-léeg mu jàll fii léeg-léeg mu ñu koy dégg feneen ak feneen ci ay xew-xew yu wuute laaj nañu taxaw jàngataat ko gëstuwaat ko te jubli ci nag yeete rek ak soññe ak yu mel noonu discours yooyu nag ma wax nag discours murit gi ci biir lay do lay dugg muy discours boo xam ne ni moom itam ci yenn yi ci yenn discours yi taban yenn yi boo ko xoolee dañ ci seetlu ci biir ne xat xatal dugg na ci biir xatal wax ji dafay dugg ci biir fés ci lool léeg-léeg nga dégg koy wax ba mu yàgg mu ne sëñ Tuubaa rek a fi nekk wala lu dul sëñ bi ak neen la te sëñ Tuubaa moom jàngaliwul loolu loolu moom du jàngaleem sëñ Tuubaa koy wax yaa ko wax waaye du jàngaleem sëñ bi loolu xatal lay jur te fés na ci yenn discours yi tasaaroo ci biir murit gi léeg-léeg itam tar ciw làmmiñ maanaam waxin boo xam ne ni day metti lool léeg-léegi sax mu xaw a tegu ci maanaam lañ la mu war a làmboo ci ay teggin nag yooyu léeg-léeg mu manqué loolu itam day feeñ ci biir kan moo war a def discours bi ak ci lan la ko war a defit léeg mu feeñ ci biir discours murid yi kon loolu dañ ci ñëwaat ci kanam kon danañ gis ne discours murit gi ci lim làmboo ci biir ak niñ koy jàllalee defe naa ne bu ci nekk waris na cee mën a am taxaw seetlu buñ ciy def xool ndax amul luñ ci war a jooyanti wala déet donte nag ci tàmbali dañ nangu ne am na ci biir murit gi discours buy jàll te mel na mu war a mel di jóge fa mu war a jóge di jàll fa mu war a jàll di jaar fa mu war a jaar nañ ko war a waxee ñu koy waxee noonu léegi kenn weddiwu ko waaye jafe-jafe bi léegi mooy ne murit boo gis léegi dafa am discours boppam ñun ñëpp ay orateur lañ ñun ñëpp ay conférencier lañ léegi moom loolu ñëpp xam nañ ko te loolu mooy safaanu li amoon ci murit gi bu njëkk bu njëkk benn kàddu moo ci murit gi kenn ko daan wax wala boog kam ko wax loolu rek moo koy wax te loola moo ñu mayoon cër bi ñu mbooloo mi addina bi joxoon bépp wala bokk suñ nattangoo yi cër bi ñu joxoon loola ca la bokkoon ngir fesal loolu nag am na xeeti discours yu baree bari yoo xam ne nii mi ngi jàll bu ci nekk dañ koy génne ci formu question laaj ba xam ndax discours boobu war naa mën a jàll wala wëtt mën a jàll bu nu xoolee discours bi génn ci murit gi léegi tey gën di tasaaroo ndax dëgg-dëgg lim yor ci lim làmboo ci biir maanaam message bim mu làmboo contenu bi mu làmboo ci biir ndax dëgg-dëgg mi ngi joxe ay tont yoo xam ne nii dëppoo ak li jamono ji laaj jamono ji ñu toll nii ndax loolu mi ngi koy joxe wala joxewu ko ndax langage bi ñuy jëfandikoo làkk bi wala boog waxin bi ñuy jëfandikoo ndax dëppoo na ak situation bi nga xam moom la jamono ñu dund jamono ji loolu benn laaj la beneen laaj bi tam mooy. ndax discours boo xam ne nii la ëpp ca discours ba ci ay ay maanaam xar baax ci lay wax ay jagle rek ci lay wax yoo xam ne nii sëñ bi am na ko ndax loolu dëppoo nag maanaam jubluwaay bu bees bi nga xam ne nii moom nañ seetlu rek ci nit ñi te mooy jubluwaay boo xam ne day tegu ci logique tegu ci raisonnement boo xam ne nii xel moo koy lal ndax loolu dëppoo nag te loolu moo tasaaroo léegi ci diggante ñëpp moo xam ne ñu tuddee maanaam amatu nas maanaam mbooloom mépp wala sax ñi nga xam dañoo àgg ci benn niveau bi léegi foo dem lépp loo teg ci kaw taabal ji nit ñi dañoo tàmbali léegi di jëfandikoo seen xel di la ci poser ay question di la laaj kooku nga xam ne xel lay jëfandikoo nag ku nekk xam ne ne logique dafa am domaine bu mu te mooy li nga xam ne ni mën nga koo layal ci xel waaye ay xar baax ak i jagle day ay mbir yoo xam ne nii ka ko moom rek moo ko mën a xam moom doo ngit moo ko mën a leeral